mondiale ak dans le contexte économique sénégalais actuel hmm. est ce que war nañ sax nekk di épiloguer encore di naan ay sorties prudentes en tout cas man je suis pas d' accord man li ma gëm mooy <coughs> zone monétaire bu ñu nekk zone bi nous avons une banque centrale indépendante la banque centrale ne dépend même ne dépend même pas de pays dépendul ci benn pays elle est indépendante euh, certains pap dañuy wax toujours si flexibilité bi am na ñoo xam ne dañu bëgg ñoom flexibilité ñoom ñaari ñaari dévise yoo xamante ni moo ñu encadré 40 pour cent comme comme Maroc Maroc dafa jël 40 pour cent dollar 60 pour cent euro nga am benn euh, monnaie flexible boo xam di nga ko gérer mais c'est que Afrique lu mu soxla mooy intégration intégration bu gën a abouti ci Afrique zone UEMOA la. Eh, intégration euh, Euh, nu mu tudd qu'une opération euh, politique populiste de changement de monnaie. waaw non loolu duñ fa mën a egg loolu xeex la doon mais duñ ci egg pour man loo am lu baax da koy téye soo jàppee ni loxo France da cee nekk génn ko mais intégration bii ñu am dañ koo war a étendre di ci dugal yeneen pays parce que pour man de je, je dis souvent dama cee bëri xarit les collègues de la banque centrale xam nga am ay sénégalais. béninois ils travaillent comme c'est pas possible pour maintenir parce que ñun dans tey en Afrique ba ñu xoolee les les les les pays les plus performants en termes de politique monétaire nous sommes arrivés deuxième derrière Botswana dëkk yi ñuy tëkkaleel yëpp Ghana moo jël ndaare Nigéria moo jël avant ndaare parce que en termes de gestion politique monétaire il faut que nit ñi faire confiance à Euh, à nos banquiers centraux c'est pas des duñu ay duñu ay. duñu ay cuune duñu ay cuune premièrement ay ñoo xamante ni dañ leen for ci mbedd wala ay France da leen téye seen la parce que parfois ñoo benn collègue dox mu ne su may dégg nit ñi dox day mel ni ñun ay booy France lañ France moo ñu xëcc suñu nopp def leen lii def leen lii. parfois il faut que ku ci nekk li ngay liggéey nga xool respectabilité bi nga ci am ak ni nga ciy def nga bàyyi xel ñooñu euh, suñu monnaie bi ñu am dem nañu 64 ans. depuis 45. depuis 45 mais léegi yow bu dee France parce que man damay wër France loxo France ba léegi gisuma ko yàlla xam na ko mais da nga war a étendre sa monnaie mu nekk benn stratégie d'intégration boo xamante ne en Afrique nga nekk huit nga yokk ko di dem bu dee jàpp nga ni France da cee nekk wala beneen loxo nga dind ko. mais même boo jël train tey les les les Marocains ils disent dañoo bëgg a delluwaat ci fixité monétaire léegi yow boo ne da ngay bëgg a dem flexibilité ay la man xam man moom je man damay bëgg ay production scientifique qu'on puisse faire des on fait des scénarios des scénarios mais franc CFA bi ñoo ko moom à 100 pour cent cest à que la banque centrale et indépendante du Sénégal de la Côte d'Ivoire waxuma la ak de la France c'est-à-dire que amul benn pays boo xamante ni parce que depuis euh, 2011 2012 ci la banque centrale coupé le le lien maintenant bu ñu bu ñu yàq loolu parce que pour man. boo amee lu baax dans le continent da nga koy téye un rapatriement des des ñu bëri xam nga ñu bëri dañoo jàppoon ni Abdoulaye Wade moo defoon erreur bi dama cee xeex ba sonn oui kon kon donne nos cinq mille milliards oui les les gens que ni xaalis bi <laughs> xaalis la boo xam bu ñëwee dañ ñu koy jox ñu téye ko ñu am on on a répatrié cet argent en deux mille vingt xam nga xam nga xaalis boobu li nit ñi xamul mooy on l'a déjà utilisé xam nga moo <laughs> gars yi dañ boo déggee réserve de change boo dul financier da nga yàq ne réserve de change xaalis la bu toog c'est une centralisation boo demee États-Unis seen banque réserve fédérale la tudd xam nga comment ça se yow boo exporté euh, en Chine xam nga devise lañ lay fayee bu ñu la fayee devise dans les opérations de rapatriement sa banque da koy yóbbu directement banque centrale bu dee un million de dollars banque centrale jox may mën a six cent millions maintenant un million de dollars boobu banque centrale téye da koy téye parce que xam na ni mooy mën a mën naa bëgg a jënd wala keneen bëgg a jënd à l'étranger maintenant la banque centrale trent deux comptes d'opération dans le monde mais France dafa waxoon depuis 94 depuis 73 la ne léegi yéen comme bëriwul ay comptes man j'ai 178 comptes d'opération dans le monde kaay leen dugal seen somme sama compte ma permettre ngeen jënd samay 178 comptes d'opération la France da ko doon def pour ces entreprises yi nekk fii mais mënu koo def ba bàyyi entreprise sénégalaise yi aussi simple que ça maintenant léegi nga ne léegi pour Ablaye Wade pour moom xaalis bi comme dafa bëgg xaalis xaalis la quoi liquide la bu ñu mën a dugal fii or le rôle de la banque xamoon na de. <laughs> non non dégg naa nag parce que j'ai j'ai discuté avec les deux banquiers j'ai discuté avec les deux banquiers yu ko yu ko convaincre mais il ne savait pas xam nga muy a ah il